teyit noo ngi leen di dalal yéen ñi nga xam ne yéen dikk tey teewe si eh, ndaje mi nga xam ne si moom lañuy tëje liggéey bi nga xam ne si moom dañ doon def ren tey ñaan yàlla mu may nu nu defaat ko defaat ko at yu baree baree bari te lépp lépp rek yàlla di nu dimbale dara bañ a ñaaw lépp di rafet te luñ ci yaakaar yaakaaral ko ci suñ bokki taalibe yaakaar ko ci suñ bokki jullit yi ak waa réew mi lépp suñ borom defal nu ko sunu kilifa sëriñ Muntaxa Mbakke bu nu ko tuddee rek man nga wax ne tudd nga ñëpp ndax nag fii benn bopp la kenn mënu leen xar buñ tuddee sëñ Muntaxa rek amul kenn ku yaakaarati ne walla nga bëgg ñu la ak diw loolu moom moo fi mas di dox day loo xam ne dafa tàmbalee ca ci lu sori sun maam yi démb ya ba ci sëriñ Touba mi fi dikk indi xar baax doxe ko na ko ñu njëkk ña doon doxe ndax lool ndax nag loolu dafay dellu rek ci lislaam ji nga xam ne lu ngeen fi gis rek teraangay lislaam la ci ki ko fi indi musta xëy wala mu gont ngir àdduna wala ngir lenn lu dul jëmi suñ borom ak taxawal lislaam te dox ci doxloo ci ñi ko topp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon doxe ànd ko ki sahaabam loolu moo indi woon Serigne Touba ci àdduna moom képpit moo ko mas a ñor lu ngeen fi gis rek lu ko san borom baaxee la lu ci soxla wut mën bëgg ko mënu koo jariñoo mu jox ko ñi ko mën a jariñoo ci njabootam te buñ nee njabootam rek jullit ñëpp ci lañ bokk kon nag noo ngi sëriñ sant sëriñ Muntaqa jàpp na ci bis bi ci anam yoo xam ne am na ci yooyu sax moo ko tegoo waaye nun njaboot gi wàcce nañ ko ko waaye lépp luy mën a yéwénal bis bi def na ko lépp lu nuy sagal def na ko xam nañ nag diggante digganteem ak sëriñ Abdou Khadir digganteem ak sëriñ siiru waaye digganteem ak mbooleem ñi mu bokkaloon sëriñ Touba. kon nag maa ngi koy sant ci biir cant googu waxtu yi dafa xat ñépp nañ ma jéggal ma dëxëñ lépp ci biir ndax mënuñoo tudd kenn bàyyi kenn ndax jataay sëñ Abdou Khadir daawud weesu sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sàngam nee na wala mu tudd kenn ci gaa yu baax yi daawu ko nag euh, wutal ab tarixa wala lenn ni sëriñ Touba doon doxee rek la waxe ndax sëriñ Touba waxoon naa leen ko fii wér du wane joxe na ko fii ku ku xam ne diggam ak Cheikh Ibrahima Fati wér du al wér du al Chazali la ko joxoon sëriñ Baara Ñang doomam ma nga ne sëñ Abdourahman Ñang mi ngi ko joxoon wér du Tijaan mam la nekk fii di yore ko fi ba 1971 wala 72 la fi soog a jógee kon ni lim ni ngeen gisee mu bindi ko ni ni la ko doon jëfee kon yaakaar naa yaatal ci Serigne Touba la dëpp Euh, kon nag lam waxoon ne woote yoruma tariixa dama fekk yoon way yónnent bi ak saxaaba yi doon dund wañ doon dox mu ñaxe ma bay ko ba mu set ne leen yoon waa ngokk loolu mooy Sëriñ Tuuba kon nag ku am ko mel noonu te noon mbir ku la ca boole rek moom nga war a xool Sëriñ Tuuba Sëriñ Abdul Xaadir mësunoo ko àdduna si te lim nu fi defal kawe na suñu njort kenn ku ci ne yëngu ba nga yëngu am nga ñoo ko yëngoo ndool waaye wóor na leen na ca mel am na loolu la ci sëriñ bi jagleel kon nag loom yàgg-yàgg bu ko ci kenn jéem a fàtte te euh, njariñ nekk fii nga bëgg ca lool waaye xamoo nooy fooy jaare nag ba jariñoo njariñ li loolu itam kenn ku ci ne nañ xam ne doy na sëkk sëkk euh, ak doye di waaye ab jullit ak lottam mën naa bañ a yàgg ndax suñu borom ubbil na ko bunt bu yaatu mooy ñaan loola jaaxal rek boo xamul nooy jariñoo ñaanal yàlla mu teg la ci yoon wi ngay tax a jariñoo waaye mbir bara nga ko mën a jariñoo danga koy xam loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moom lañ rek di leen ko fàttali nangeen ngeen ngoy bu baax ci Sëriñ Tuubaa na ngeen di bu leen di def lu ngeen dégg ci mbedd wala nit di ko wax am nit gis la yaakaar li ci say poos mu lay wax loola neex di la jay waaye bu la jayet fa ñuy lijjanteel li nga doon def bañ lay jay kooka du ko fekke kon su boobaa bu kenn nax sa bopp bu kenn war sa bopp waru baaxul ndax tam sëriñ bi wax na ko lakin salaamatum min al xururi la amru rabbi asaabul umur yi bari na luy mën a war nit jihaat sax des na ci waru te gis nga ko xoone mi ngi tuur deretam te seytaane rekk ko gemb lool day am yeneen yi ci des nag buñ ko waxul bu dul jihaad ji mu tudd tam waaw euh, euh, loolu la ko baax baadohum xat xurra bil jihaad yi xam nga loolu kon day mel ni ku doon ku doon waru bu doon dal nit day mel ni ci euh, luy dëppoog bànneexam bakkanam la ko war a mën a dale wala jaamu yàlla bu sedd waaye dem ci jàkkaar la ko wax ne mën naa tuur sa bakkan mën naa jël sa bakkan yow nga mën a jël bakkanam te fekk ak woru la ci yow loolu nag dama cee tudd Euh, baat boobu ndax li ko sëriñ bi wax ci ci ci masaalikul naan waaye jaamu yàlla yépp lu ci ne mën na caa dale nit nañ koy moytu ba ci xasaayit yi nit ñuy jàng koo gis rek mu te ñu baree bari xamuñu lan mooy xasaayit euh, sëriñ bi ci boppam njëkk loolu lépp dafa wax ne kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatan li xayri zikirin xat rusim ndigalul sëriñ Tuubaa nag am naa yaakaar ci ne ku ku dib taalibeem doo ko dégg di wàcc di jëfandikoo sa xelum bopp wàcc lu la leer naññ di def leneen kon nañ ci góorgóorlu bu baax maa ngi ñi nga xam ne sëñ Abdou Khadir la ñu yaakaar may seen jëwriñ ñooñ maa ngi leen di wax nañuy moytu bu baax di ko laabir yët sama bépp mbokkum taalibe mu yaakaar sëriñ tubaa nañ xam ne sëriñ bi dafa fonk lu alxuraan xasaa it yooyu boo ferul ijji mënoo jàng xasida te boo bu la sa say waajur di eh, boo demee ba mat a dal amul kenn ko mas a gis ñu ñu bindal ko ak xasida naan ko dañ koy jàngal dangay dal alxuraan ngay wax dal alxuraan jooji sëriñ Tuuba dafa dikk yor njariñam ñu yàlla taw tawféexal ñépp kenn ku ci ne njariñ loolu yi nga ñëw jëlsi ci sa wàll te képp ku bokk ci lislaam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 ci boppam wàccuwaay boo xam ne te booba de am wàccuwaay ci Serigne Touba ñi ko yittewoo bari na koo xam ne àgg nga ci ñaari ñu bokk tur kii moom ak fuuf waaye wattuwut muy woolu ki wattu alxuraan ñu wooye ki ëppi at ba mu dikkee mu leen waxuma kii diw mu mag lay wax te ah, ka mag fa moom mooy ko wattu alxuraan bi loolu bu murit waru mukk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 mokkal mokkal masaalikul jinaan a taxoon ñu tudde ko ko masaalikul jinaan junniy way la da ko mokkaloon ba ñëpp di ko waye seex mbay masaalik xamoon naa ku ñuy wax seex jóob seex ndaama daaru mu wax di la dëkkoon di taalib si ñam sa seex seex jóob xidma lañ ko daan wooye kenn xam ca mel ca année soixante ba ni mu fi jógee yàggut saabu xëyee jàng ba ñëpp xamee ko ko tudde ko kon ñëpp jàng xasaayit sun sun njariñ ñun ñëpp lu nuy jariñ tey ak ëllëg mi ngi ci fii bu gàmm masaan dikk sëñ Abdou Khadir li muy ubbee eh, ak gàmmoom mooy yab tànnoon na mag ñu sell yàbbal leen ci jàkk ja la ñuy njëkk def wàcce fa kaamile alxuraan ba bisu tey bi sëñ Lamine Diop mi ak magam ñoo koy taxaw sëñ Seex may sax ci mujj gi moom la daan taxawaloo ñuy jàng ma mos nañu fayam maag sëñ Moussa mii ba ñuy doog a ñibbisi loola ba tey ñu ko fiy def bu noppee nag ma ne ko euh, bu noppee ca njàngum alxuraan nag nu ñuy def ci li des ci guddi gi mu ne xanaa farlu ci xasaayid yi kon jàngalu nañ waaye dangay ngay jàng alxuraan waaye nga jàngi xasaayid waaye bul ne nag sëriñ bi defal nañu ci lépp bulu ci sëriñ bi defal waaye lépp te jaaroo fa sëñ bi digle it ci jot kon daal loolu maa ngi ñëpp ku ku yaakaar sëriñ bi daal lii lañ lay wax te lii ma lay wax képp koo xam ne mi sama rakk nga ju ma sëñ Abdou loolu la lay wax digal amu ci amu ci ak wérante nanu góor góorlu bu baax e, bu bu nu soññee itam sant leen ci li weesu ci ndigal yi ngeen dégg di ko jëfe muy demee ne màggal gi ak du sëriñ bu mag bi diglee jëwriñ yi jottali leen ko la ngeen cay def soññi wuñu kenn kenn kon dañ laa bàyyi ak sa sago nga doxe ca nang ca mën a doxe te loolu mooy baaxub kër gi te loolu fa fasunu ko yéene teggi mukk